c'est Al Haïbou TV la télé qui te pousse télé bi moo lay xalaat loo Al Haïbou TV. jiite diine ji def ci ñoom maanu jub ragal yàlla ak yërmande ci askan wi ñu ànd ci jariñ askan wi bañ a kompaloo ci jariñoo askan wi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yërëmal ñu suñuy way dawlu suñu way jur yi suñu bokk yi suñu wëllëri yi ak bokk jur yi yëpp yàlla def seen bàmmeel yi muy xaarukaay àjjana yàlla na yàlla génne jëlee mbas mi nga xam ne moo fi nekk ba mu jeex takk ci àdduna bi waaye jëlee mbas mi ñuy déggit yàlla na yem fa mu yem te yàlla na ko fa yàlla jële te yàlla na ko yàlla saafara yooyu ci yàlla defal ñu jàmm ak wér ci barke seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla sàmmali suñu diine sunu ngor ak suñu bokk yàlla bu mu xajam àdduna ak alaxira ñi ngi nekkoon ci yar ba tey muy lu am solo muy dund nit nga xam lépp ci yar la tegu bu échecgee dundam yépp échec ñu waxoon ni école bokk na ci li nga xam ni mooy yor rôle bi gën a rëy ci yar parce que mooy institution spécialisée bi nga xam ni dañ ko tabax rek pour mën a jubbanti doomu aadama ñu waxoon ni nag école dafa am ñetti mbir yoo xamante ni bu fekkee ni yem bu fa rek école rôle doxatu ko ñu waxoon bu njëkk bi mooy albina al yi defar nit ki ba nga xamante ni day nekk nit waaye mu des albina al axlaaqi bi ñu war a jàngat tey muy defar nit ki maanaam école day barab boo xam ni dañ fa war a jubbanti jikko moo tax toujours jàngalekat dafa war a déggoo parents d'élèves ndax jàngalekat bokk na ci rôle mooy mu seet jikko yi nga xam ni jot naa sooxe ci yaru kër ga mu jubbanti ko ci école bi loolu dafa bokk ci rôle jàngalekat ndax moo tax yow ñu lay yóbbu école de formation di la former ci nit ki nan la ñuy jëmbate jikko ci ju xale waaye nan la ñuy sempee jikko bu baaxul ci xale kon loolu rôle jàngalekat la ci muy contrôler xale bi il est vrai vrai que nag système boo nekkee ci classe boo xam ni quatre-vingt et quelques élèves la nekk nga bëgg a liggéey loolu moom du sotti moo tax ñu dañu nekk ci condition yoo xam mar d'Italie waaw su suñu suñu yar moom dafay sooxe loolu suñu système moo doy waar waaw ndax boo nekkee ci classe boo xam ni quatre-vingt quelques élèves jóge ci kër yu bokkul ñu yar leen yar bu bokkul boo demee ci France maanaam effectifu classe du passé vingt-cinq élève wala bu ko néew yow nga ñëw fii ñu jox la quatre-vingt et quelques élèves nga bëgg a nga bëgg liggéey boobu mënul nekk moo tax ñun dañuy duñ situation xam kenn xamul wu doon moo tax loolu loolu ci jàngalekat la te alxuraan moo ni éducation ak instruction ñoo war yàlla dafa ni iqra waaye bismi rabbik moo tax ñoom ñaar bu ñu kenn war a taxale iqra jàngal mais na nekk bismi rabbik waaw donc éducation ak instruction maanaam ñaari euh, kàddu yooyu ñoo ko dajale ku ko taxale yàq iqra bismi rabbika moo tax instruction ak éducation ñoo war di ànd boo leen taqalee rek yàq waaw ñun nag suñu réew instruction moo fi am mais éducation moom amul moo tax gis nga njàng mi li ci ëpp njariñ li bariwul moo tax loolu ñu bàyyi ci xel euh, parents d'élèves yi ak école bi te loolu système bi yépp ñoo ci war a farlu ci école école maanaam état bi def ci war a def li mu war pour programme bi méngoo yar bi ñu soxla ci askan wi waaye nag loolu mënul nekk ci ñun parce que ñun amuñu projet de société amuñu ko kii ñu ngi jàngee rek dañuy topp tubaab bi rek fu ñu jaar lañu jaar fa amuñu projet de société réew dafay am projet de société société bi yëpp ñu d'accord ñun fii lañ jëm ñu nii lañu bëgg suñu réew ñu defar type sénégalais boo xam ni moom moom valable na pour liggéey ci projet boobu loolu dañuy doxee mais ñun dañuy toog rek ñuy jiite dañuy toog rek leen France wax wala États-Unis wax ñu def ko jox leen xaalis ñu def loolu fi ne suñu programme programme yi jàng 10 ans yu nekk ñu indi benn programme ni lo non bii léegi bi nee na boobu xew nañ bii moo xew léegi mel ni ñun am ñu ay borom xam yu xalaat loolu moo fi nekk ah suñu bi loolu moo fi nekk de chaque 10 ans ñu indil ñu programme bu bees tubaab yi nee na bii xew na bii moo xew léegi mel ni fii ñi fi nekk seen njàng tekkiwul dara te am na ay experts yu nekk fi yoo xam ne mën nañoo xalaatal yoo xam ne waaw états généraux de l' éducation fii lañ ko defee mais mi ngi ci tiroir yi dëggat ko mu bëgg suñuy réalité méngoo ak suñuy bëgg-bëgg méngoo suñu suñuy diini lépp ñu defar ko alors mi ngi ci tiroir yi ñu toog rek tubaab bi bu ñëwee indi seen i programme dugal ci xaalis sénégalais moom loo ci teg xaalis moom boo ko ne woon reyal sa bàyyi indi xaalis sax mu rey bàyyam loolu nag mi sëñ bi société bu mel noonu sëñ yàlla ñu ko yàlla musal yàlla ñu yàlla jubal te rek ñu siraatal mustaqim asalaamaaleykum wa rahmatullah